seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang bisimila fàttaliku leen Yaya Jammeh dafa porte woon plainte nguurug senegal ca CEDEAO di boole ak a clamé ne Sénégal dafa xëy rek tëj ay frontière nag lu ñu mel waru ko mën a def bu ñu sukkandikoo ci këyit yi nga xam ne moo tënk réew yu bokk CEDEAO yéenekaay bi di l'observateur xamal ñu tey jii na plainte boobu dañ ko teg fële sànni ko ni tegee ndax nag waa CEDEAO nee na plainte boobu amul objet li Yaya Jammeh wax dara du ci dëgg yéenekaay bi di Le Quotidien ca biir Gàmbi moom démb polisu Yaya Jammeh sonal na lool ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousseynou daabo ndax dañ ko doon yóbbu ca kot maanaam ca tribunal ngir àtte ko ñooñu bëggoon a manifester waaye policiers yi làpp na leen làpp yu wóor jaloog politique lañuy ñuy tàbb ci biir Sénégal ci biir yéenekaay bi la tribune Oumou Salamata Muntaga Taal mi nga xam ne ci bésub dëjëm la kii di Macky Sall yëkkati woon ay kàddu wax ci wàllu dialogue bi moom rotal na ay kàddu ci biir yéenekaay bi di La Tribune ne waaye waaye Abdoulaye Wade ak Macky Sall faaw ñu waxtaan ba juboo déggoo ci ay kàddu Abdoulaye Daouda jàlloo démb ma nga woon ca laayeen ya la mu wax lenn la nee na Macky Sall noppi na ngir rekk jaloog bi mën a wéy fii ci réew mi am Amsatou Sow Sidibé ba tey ji ci biir yéenekaay bi di La Tribune mel ni ku koy dànkaafu ne waxtaan wax dëgg cëla dialogue moom na ko dëgg rek lal waaye nag xale yi nekk ci biir parti socialiste di jeunesse démocratie et socialisme nee nañ <laughs> ñii daal ndax askan wi rek lañ bëggati di wax ay retrouvailles famille libérale matali matala dara du ci dëgg naxati askanu Sénégal la ñu bëgg waaye ci biir yéenekaay bi di Le Populaire Seydou Guèye mi nga xam ne moo yor kàddu gouvernement bi ne tey ma leeral ñun négocier wuñ tey te waxuñu retour retrouvailles libérales te nag réew mi nekkul ci crise bu nekkee ne dañuy wax jaloog nañu xool li nga xam ne moo ñor askan wi lu mën a jëmale réew mi kanam ak tamit luy bëgg-bëgg askan wi ah, ñépp toog waxtaanee ko ba juboo ci waaye bàyyi leen rek bu ne jaloog ñuy wax retrouvailles libérales te nag loolu buñ ko waxee dafa mel ni dañuy taxawee wet dàq ñeneen ñi ñu ne ko Idrissa Seck mu ne Idrissa Seck fa mu xam ne bëgg nañ xam-xam ci nguur waaye nguuru xam-xam moom naxee mbaay dong lay doon Macky Sall ca booba ma nga cay projet am bii di laas ne songo na jam ñaajo de fi mu nekk nii deuxième génération ay travaux ca jam ñaajo la tàmbali Mamadou Thierno Talla xeltukat ci biir yéen bii di laas mu ne jam ñaajo daal xoo xoolee bu baax a baax ni ko Macky Sall songee nii moo nar a nekk xolu émergence bi ñuy dégg fii ci réew mi yéen kay bi Le Quotidien na Macky da yëkkati na truelam jox ko privé national bi na leen kaay leen ñu sumbandoo dóorandoo yëkkati jam ñaajo ndax lu mu gëm moo di jam ñaajo ci boppam mooy cité bu bees bi te nag Macky xam ne ci biir yenekaay bi di Libération ne ñaajo gii dina demi ba nga xam ne ci su région bi yëpp moo fi dàq yéenekaay bi Libération dikk ci mbiru Panama Papers yi lu xew am na benn xaritu benn bakkan bu bi ba burji buñ ci gis nu mu tudd Marwan Zahem yéenekaay bi di Libération ne turam sax génnoon na ci dossier CREI ñeenti société offshore benn bi sax mi ngi ci Sénégal enquête ne waa PDS lu fa des fu dëgg neex yàlla doomu Ablaye Wade yëpp a ngay dem Fara dem na Balde dem na Pape Diop dem na Souleymane Ndéné Ndiaye dem na ñëpp ngay dem yenn kàddu Le Quotidien dikk ci wàllu politique ba tey jii ne Mimi Aminata Touré dañ ko nar a sërëxal fële ca Kaolack ma ngay menacé nag Mariama Sarr waaye Nafissatou Diop Cissé moom it ma nga ca Kaolack nee na ñi ngi koy dalal bu baax a baax moom mii di Mimi Touré mbay ca am ci biir yéenekaay bii di l'Observateur nee na bu nekkee am na ñoo xam ne leen tax a jóg moo di tënk l'école bi nguur gi dina defanteeg ñoom ba mu saf sàpp ci biir partialiste nag nee na Khalifa Sall am na sañ-sañ xool li nga xam ne mooy tooguwaayu Tanor Dieng bëgg faa toog waaye na ko biir leer kon ne fi mu nekk nii mouvement satellite moom munta normalil benn yoon parti bi wër ndomba taxuta daan parti bi te nag li am ba des moo di faw lépp leer ci biir parti socialiste waaye démb yor-yoru laayeen yi kéemaan a fa amoon yéen kay le populaire moo ñu ko wax nee na yi génn na ñëpp gis leen ci biir géej gi rax ci dolli Seydina Issa Laye moom ci boppam feeñu nit ñi ca baas ba tax ne ñëpp fa doon daanu yësi jeexal ak yéenekaay bi di la populaire ne fi mu nekk nii gendarmerie lu toll ci vingt deux mille six cent quatre vingt mille tonnes la jàpp ceeb te nag loolu cargaison bi buñ ko évaluer six milliards de france francs CFA la. doy na waar jërë ngeen jëf déglu ñu leen di daje soo seen site dakar matin point com incha